salaamaaleykum waa Jolof yëpp vraiment li xew ci taarixu politique Sénégal ren jii dinañ toog lu yàgg boroom xam-xam yi di ko gëstu te boo moytul duñ ko mën a comprendre dama mës dem ci benn émission ma wax ne la magie de Pastef pour nga xam ko foog nga dund ko de l'intérieur du parti daaw heure bii ñu ma invité Walfadjri journaliste bi posé ma question ne ñu ngi rombanaat ne seen parti dinañ ko dissoudre ma ne ko kuy dissoudre Pastef ku koy jur ku war a jur kooku ku ko war a juraat judoogul mu am benn lenn lu ma bëggul wax turam toog jël défi bu dissoudre ko ma toog kaso jàpp sama njàmbur di ko seetaan laata may génn delluwaat na Pastef bu Pastef fa ngi nii jàkkaarloog tey autour de Pastef est bâtie une coalition exceptionnelle muy la coalition Diomaye Président mbokki daara Jolof fii laa koy waxee à six heures du matin kenn mësul xalaat meetingu six du matin mais la coalition Diomaye Président l'a fait lan moo tax mu def ko parce qu'on ne pas que c'était impossible et c'est pourquoi on l'a fait ñeneen ñi dañu jàppoon ne que mënul nekk ci meeting six du matin ñun nag xamuñu woon ne mënul nekk ñeneen ñi dañoo gëm ne Sénégal mënul développé ñun gëm gëmuñu ne Sénégal mën naa ñàkk mënul nekk dëkk boo xamante ne ñàkk a mën a développé kese koy topp donc lépp li nga xamante ne ci politique ñoom tële na ko ñun def nañu ko kon bu ñu leen waxee ne ñoom ñu ñu tëlee tëlee ci yoorinu réew mi mën nañ ko def war ngeen ñu gëm lan ngeen xamoon ci politique Sénégal mooy borom ki bëgg responsable bi mooy jël xaalisam di ko jox militant yi militant yi di ko topp yéen yéen ay jox seen leader yi xaalis pour ñu mën a doxal parti bi ñoom boo leen laajoon ne loolu mën na nekk ñu ne la mënut nekk waaye ñun ñii xamuñu woon ne mënut nekk moo tax ñu def ko kon may delluwaat rek ci leaderu coalition bi d'abord ces hommes et ces femmes qui m'accompagnent sont d'une dimension exceptionnelle ñii ñu bëri ci ñoom liggéey nañu ba retraité wala ñenn ci ñoom tey ñu ngi egg si Kaolack démb sax laay wax heure bi du may tëdd démb il était 7 heures mooy 10 minutes 7 du matin mooy 10 minutes parce que bu ñuy pare euh, Kaolack 5 heures jot na le temps que egg ci hôtel bi il était 6 du matin ñu yeewu 11 heures ba tey ñu ngi nii. taxawuñu fenn lu dul ci biir yi pour lekk donc ay ndaanaan lañu boo leen dee xool tuuti di pose la question de savoir est-ce que boo amoon seen âge di nga am taxawaay ji am tey ci réew mi donc ils nous inspirent te ñoom ñoo ñuy niital yoon bi nga xamante ne ci lañuy ñuy gën am fit pour jaar ci kon amuñu seen fay yéen leaderu coalition bi yëpp ku lim juum góor ak jigéen mag ak ndaw amuñu fay ñi nga xamante ne ñoo nekk les responsables et de la coalition Diomaye président parce que bu fi ñuy toogee c'est parce que ci yéen la ñuy xool c'est parce que yéen a leen may fit c'est que yéen fi toogal ak ñoom yéen a naxtaan ak ñoom may leen ndëgër laay ba ñu toog fii xaar la coalition de 6 heures du matin waaye xam ngeen tout le temps tàmm nañu di rendre hommage ku ñuy woowee le militant inconnu mooy ki ñu xamul te projet bi jaral ko bakkanam mooy ki ñu xamul te projet bi jaral ko wér-gu-yaramam mooy ki ñu xamul te projet bi jaral ko liggéeyam walla mu jaral ko sax leneen loo xamante ne gën naa xool ci moom ko loolu kon yéen ñëpp tàccul leen seen bopp ngeen xam ne bu ñu dee wax projet bi yéenay laytaay ji yéenay ndëgërlaay ji kon kenn mënul am seen fay kenn mënul am payu ngay militant yu lay xaar ba 6 heures du matin mais enjeu yi ñu toll Sénégal fu mu toll jar na lu ëpp li ñuy def ndax réew mii tey mooy le jeudi suba vendredi gannaaw suba samedi quatre jours a ci des d'un rendez-vous boo xamante ne mënuñu ko manqué depuis des choses ont été faites certaines pas du tout bonnes, d'autres passables, certaines médiocres. Mais de toutes ces erreurs-là, de toutes ces réussites, ces succès et de ces échecs, mooy lu ñu déterminé en tant que sénégalais ak conditions yi nga ci la ñuy dund mais la rupture quatre jours ci des c'est un rendez-vous qu'on ne kon mbokki Jolof mbokki Daara Jolof mbokki Linguère gii ñuy dem ci ñuy dégg yëpp di ñu suivre à travers le monde xam leen ne rendez mënuñu ko mënuñu ko ratal le dimanche 24 mars 2024 l'histoire doit changer elle ne doit plus bégayer on ne peut pas commettre les choix qu'on est de commettre li ngeen doon jooy il ans tey la gën a tar boo moytul kenn ku nekk ci yéen xam na koo xamante ne toog na fi di muñ ni ngeen di muñee tey ba ngeen ñu fekk leen fii ba ba seen muñ jeex ñu dem jëli ji waax ya ba seen bakkan des fa ñooñu noonu nag pour bañ ñeneen continuer di topp seen tànk yi li leen di dem loo mu ngi ci seen loxo te carte électeur la tudd ndax foofu ñuy dam daw dem yàlla wàcce wàccewu fa ay yonent wàccewu fa ay malaaka wàccewu fa ay jine ñu wàccewul fii ay nit la fa wàccee ñu am ñaari nopp am ñaari loxo loxo bu ci nekk am juróomi baaram ak ñaari tànk kon bu ñu mënee toog seen dëkk yi liggéey ko mën nañu toog suñu dëkk liggéey ko xam naa ne yéen ñi toog nii yëpp leen jox liggéey ngeen wane jom ji ngeen di wane bu nekk ci yéen Sénégal nag am na lu ne waaye lenn la tumurank mooy ay njiit yu baax ay njiit yu yërëm askan wi ay njiit yu comprendre seen seen peuple comprendre seen jeunesse moo tax logiciel bu ñu leen mooñee moo adapté tul ci aspiration peuple bi war a mën a porter boo waxee dañoo bëgg am suñu xaalisu bopp ñu ne andi nañu musiba danger la ñu Mauritanie gii am na am na xaalisu boppam te taxul réew réew bu tas Gambie bii am na xaalisu boppam sur cinquante quatre pays africains rek ñoo amul seen xaalisu bopp Sénégal ci la bokk est-ce que jotul ñu bokk ci réew yi nga xamante ne moom nañ seen bopp moomeel gu tax ñoom ñu mën a am seen xaalisu bopp waaye ni ñu leen formaté moo tax loolu mënuñu ko comprendre ni ñu leen formaté moo tax mënuñu comprendre yéen seen jooy mënuñu ko dégg yéen jeunes yi parce que ils ne se remis en cause ils n'ont pas renouvelé cette façon de voir le monde et comment les nouvelles aspirations du peuple sénégalais sont portées par une jeunesse déterminée à s'accomplir loolu nag bu ngeen ko bëggee am président boo xamante ne xam na li ngeen di dund parce que seen moroom la xam na li ngeen di dund parce que seen âge la seen génération la xam ngeen li ngeen di def lan ngeen di def président ngeen di tànn président xale 70 pour cent des jeunes ayant moins de 35 ans jeune moo leen war a jiite bu leen kenn gëmloo ne nag qu'on n'a pas les épaules on a plus que parce que bu ngeen xoolee ni élection bi di demee nii xam ngeen ni dañ koy gagné ku la gagné nag yow mi amoon épaule boo jàppalee sa bopp épaule ku la gagné nag moo la boo jàppee sa bopp sa bopp mbër kaamil ku la daaneel moo la gën a doon mbar kaamil te le dimanche 24 mars 2024 incha allahu rabi dinañu laal suuf dinañu laal suuf te dinañ bale Sénégal senegal ba mu set wicc sàcc yi fi nekk di lor askan wi ba ndaw yi dem ba amatuñu yaakaar di daw génn réew mi loolu incha allah rabi avec Bassirou Diomaye Faye président dafay jeex kon li ci des nañ ko mbotal rek ñu xool Sénégal la ngeen ciy gis nii li ci bari lu dul yoon war na mën a dàkk ci lu gaaw a gaaw a gaaw li ci des ñu ànd xeex ko defar Sénégal tabaxaat ko li nekk Jolof yéen ma ko gën xam ay tali yu manqué mbéy mu deltu gannaaw paj mu baaxul Jolof am na potentiel boo xam ne tey élevage Jolof waroon na mën di jox Sénégal ñaar mooy bu tabaski waroon jub waroon ñu ne dañuy ubbi frontière yi pour ay Mauritaniens ak ay Maliens di dugal seen xar pour ñu mën tabaski loolu yoon lii nekk fii Jolof waroon nañ fi am ren ranch bi fi nekk waroon na di fonctionner ni muy fonctionner normalement ba pare ñu fi am yàpp joo xamante ne ku soxla yàpp Sénégal nga jot ci autosuffisance en viande waroon nañ ko am fii te kon liñ waroon di fi rey ci ay jur di jël seen der di ko fóot di ko defaree fii waroon nañ fi am cuir boo xamante ne dina mën a dimbale uude yi nekk ci ngaay yi mais noonu économie koom-koom gi war a lëkkaloo ci diggante béykat yi bi jox jur gi mu lekk jur gi jox buuse gi buuse gi jër uude gi jox ko jër jër gi jox ko uude gi uude gi defar ci dàll ñoom xam-xam boobu ñuy amee chaîne de valeur boobu moo dem dese moo tax lépp lu fi matière première dañ koy exporté mu dellu si waat gën kon lii mooy problème mu Sénégal lii mooy problème mu Jolof parce que li leen wokk moo xuri ñeneen waaye quatre jours ci des ni ngeen toogee nii ba 6 heures di ñu xaar li ñuy wax ak yéen yépp benn njeexintal la am mooy ngeen voter mais ngeen faire voter ba pare ngeen sécuriser les résultats kon bu ngeen mënee toog fii ba 6 heures du matin war ngeen mën a yeewu 6 heures du matin dem rang voter bu leen dara xaddiloo foofu bu ngeen voter ba pare delluwaat leen ci biir kër yi ngeen jël maire yi dem voter ngeen demawaat leen jël paa yi di dem voté ngeen nag toog leen ngeen déglu rajo ñu ngi dem ci centre de vote yi dem teg fa bët ba keroog ñuy wax dem na ngeen delawaat déglu te dégg bàcc yi nag ñafal ñafal bu foofu lay commencé te dina tar lool commencé nañ ñoom ñi nekk pouvoir dinaan élection bi dina am deuxième tour ñun opposition bi ñoo wax ne deuxième tour du am dañuy woor dañoo sonn en coup kawo prép dip ñu daan mu jeex wala am rek bëgg ñu leneen prép dip ñu daan suuf